na déjà loo xam ne dafa xew muy lu ñu recensé muy loo xam ne ay ay kii la sikki sàkk yoo xam ne amaguñ ci loo xam ne leer na waaye nag fagaru moo gën faju looloo tax ñoom ñu dem ba xool famille yi nga xam ne nekkoon nañ en contact avec ki ak ki nga xam ne xalaatoon nañ ne am na ko mettre leen en quarantaine ay nit nag soo leen mettre en quarantaine war nga leen taxaw la ñuy soxla pour mettre mise en quarantaine boobu mën a am effet yi ñuy soxla da nga leen di taxawu looloo tax tey ñu indil gouverneur lii ñu ko indil muy ceeb ak diwlin ak ay savon ay ay eau de javel ay savon madar ay gel ak ay raxasukaay la mais yi yooyu yëpp pour que moom mu mën a jàppale famille yi nga xam ne tey dañ leen mettre en quarantaine te lii début rek xamuñu fu mu yem moo tax ku nekk xam naa ne yaa ngi xalaat nooy def pour ñëw fii indi sa ndimbal jox ko ñi nga xam ne ñoo yore comité boobu ci li nga xam ne mooy xeex bi ñu bëgg a xeex coronavirus te ñu ñu ko di ko tuddee Covid 19. muy loo xam ne tey euh, ñëpp war a taxaw respecter li nga xam ne mooy li président de la république son excellence Macky Sall santaane muy cet gi nga xam ne ku nekk da nga koo war a def raxas loxo yi utiliser gel yi sàmm daal loolu. Euh, sol masque yi fi nga xam ne foofu lañ ko war a solee ak ñi ko war a sol lépp rek ngir bañ feebar bi law ndax bu lawee ba ëpp loxo dootuñu xam nuñ koy lijjantee te fagaru moo gën faju moo tax ñu nekk ci lii euh, dinañu génn nag demaat ci hôpitaux yi fàtte naa ko wax sa si nasaraan danañu dem hôpital régional dinañu dem ci poste de santé yi nga xam ne ci mairie yi la ñu jokku dinañu dem ci marché yi nga xam ne ci mairie yi lañ jokku yooyu yëpp dinañ ci ànd ak préfet liggéey ko ba nga xam ne tey euh, taxawaay bi war daal ci commune Kaolack donc dinañ ko taxaw ndax loolu mooy sunu devoir ñuy ñaan yàlla rek ne sénégalais yi gën a dégg li nga xam ne mooy ndigali président de la république joxe rawatina fii ci Kaolack population Kaolack yi conformé wu ci loolu ci raxas loxo yi balaa ñuy génn moytu ndaje yi nga xam ne ndaje yi rassemblement yu bari la te amul solo yooyu yëpp nañ ko moytu euh, ku nekk toog sa kër comme niñ ko santaanee suñ ko defee yàlla mën nañu defal defal sutura loolu daal la ñaan ñuy gërëm encore une fois monsieur le gouverneur di gërëm monsieur le préfet ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi ko taxaw ci lii nga xam ne door na di ñaan yàlla dolli ci sutura daal. gërëm bu baax madame le maire Mariama Sarr maire kawlak ci ndimbal yi nga xam ne nii indi ko pour dugal loxoom ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ko ci coronavirus. nga xam ne ñun ñëpp benn noonu lañ am tey jii muy coronavirus te il ñu daan ko nag moom xam na ko ba tax na mu indi ndimbal bu am solo bi nga xam ne lim nañ ko fi léegi muy produit buy désinfecté buy raxas produit buy protégé ba nga xam ne da koy kii say loxo ay gel indi fi ay savon liquide ay madaar indi fi ceeb bu bëri euh, ak yeneen i produits yu nga xam ne nii day jëm ci kër. ñukoy gërëm bu baax diko ko sant bu baax ci turu président de la république son excellence Macky Sall di wax rek ne euh, li man non na ci mom parce que nan lañ ko bëggé jëndal ñu produit mo ñu gënal sax xaalis bi xaalis sax la non joxe ma ko jëndal ñu ko produit parce produit ni dana mëna dem euh, ci euh, famille yi nga Ninglendi, Ninglendi actuellement ñing leen di ñing leen di surveiller parce que xam ngeen ne am na benn cas buñ buñ feneen buñ signalé feneen te cas boobu euh, waajooju jaaroon na fii bi mu fi jaaree nag am fi ay fan dem ci beneen région région boobu bam fa demee ñu déclaré ko positif donc xam nga dafay war bon ñu seet fii bi mu jaaree ci région bi fan la jaar ñan la nekkaloon ci yan famille la nekkoon ñan la ñan la doon àndal ci yan auto lu duggoon loolu lepp tay ji xam nañu ko mu ciy profito vraiment pour remercier ñepp ñi nga xam ñi ñu ciy dugal ñi ngi ciy dugal dox loxo alaykum wa rahmatullah